Colombia! ah mbokki amateuru làmb yi olof njaay dafa ne fa nga wokk foofa neex delloo fa sab loxo fàllu njaay borom njaay production la mu def keroog ca Iba Mar Diop moom la amateuru lamb yépp di waxtaane ma ne ko fàllu loo narati mu ne ma le 11 janvier 2020 ci stade Iba Mar Diop damay indi combat bu rëy mu nekkati soog des espoirs gone yoo xam ne bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex gone yi nga xam ne ñépp leen sopp ndax seenu njàmbaar muy grand combat bi dox ci diggante bébé bismeek Ada Fass bu bennoo nekk combat jinne muy ñaari gone yoo xam ne lambaam na ci ñoom yaakaar ma ne cey le 11 spécial ba mu ngay dox ci diggante diggante Vieux Dacia ak Koña 2 deuxième spécial diggante ne mbokk yi loolu rek toj na Iba Mar Diop fàllu ne ma dana gën a tee neex ndax combat préliminaire ya Jokkan Ahmed Lo tasek Ahmed Lacrose Gilo dana tasek Tibles Melkelen 2 dana tasek Karbala Mayga ba mu ne dama koy yombal amateur tribune supporter 2000 francs tribune amateur 3000 francs ma ne ko fàllu ndax gone yi danañ xëj Iba Mar mu ne ma benn combat boo ci seppi rek fees na Iba ma ne kon le 11 janvier Iba Mar Diop dana mel ni ndambel banaana